asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen fay man daal dama leen bëggoon a laajte ndax xam ngeen la mooy l'inévitable l'inévitable mooy festival d'art communitaire de Salle man maa ngi leen di invité euh, si première édition festival bi euh, si le 2 le 3 ak le 4 juin si mbeddi Saali festival bi. Euh, waa dëkk bi ñoo ko créer ñoo ko defar pour ñun pour mag yi pour xale yi pour ñëpp ñu dëkk saal pour ngeen mën a seetaan mën a bége euh, ça dépend si jour bi euh, man ngeen ko man ngeen gis l'inévitable si Plaza Libertad bi wala Parc Monar Plaza Verde bi wala Comacros bi su fekkee information bi leerul si yéen man ngeen a dugg si web bi si site web bi festival inévitable point 4 wala euh, euh, seet si réseaux sociaux yi si internet bi léegi lii rek la woon maa ngi leen maa ngi leen di xaar te di leen laaj la ngeen di xaar pour ñëw pour ñu bége